palme bi ñaari at yi ñu ngi koy togg palme bi programme d'assainissement liquide municipal 2024 2028 lu ñu koy togg ñaari at ndax assainissement moy ni mel ñetti composante benn bi moy population yi li ñuy def ci quartier ñu gunge leen ci yaatal ko yok ko ba nga xamni du nek saafara ju ju ñaar di ngeen gis kano yu mag yo xam ndoxum taw war def mais bo né drainage da fay bax amna yo xamni ño wara gëna yam ba ci yu gën a tuuti toll ak doolooy maire maire daf ko war a def ñett mooy plaidoyer plaidoyer mooy jéem a ñaax nguur état ndax état moo am compétence assainissement te am na loo xam ne moo am dooleem li eggul mu eggali ko li matul mu mottali ko tey nag dañ tey lañ tàmbali palme bi mën ngeen tey lañ ko lancé tey lañ démarré travaux yi bi ci njëkk mooy li ñu bëgg def fële ci canal central ci exutoire bi exutoire mooy fa ndox mi tuuroo ci géej gi ñun liñ ci jublu mooy buñ ko yaatalee defaraat ko moom baax defaraat ko mën naa am même bu ñu defarul tronçon bi nga xam ne moo ci des tronçon moom tronçon étal moo am doole def ko mais mos ñu defaraat fa muy tuuroo ba nga xam ne ndox bu ñëwee lay lay jéggi jéggi di dem feneen wàññeeku dem nañ aussi ruqul dëgg loo xam foo xam ni fa la population yi dañuy yàgg di yëngatu ci wàllu assainissement ñu bokk ci lu bari mais dafa am foo xam ne fa la ndox bi fa la foofu foofu ñoom ñëpp fay jaar moo gën a metti ci ñoom ci yàgg na amay coow ñun dañ koy foofu dañ koy defaraat ah, fi mujj nag mooy fi ñu dem ci à l'ouest booru ñoo xam ne ñoom dañ ko zone boobu dix dix quartiers ñoo ko bokk am na benn canal bu fa nekkoon muy canal Capek boo xam ne mooy jaar foofu ba jaar ba dem ba ci booru ci sag ñun dañ koy parois yi dañ koy defaraat ndax drainage ñoom góorgóorlu nañ ba am ku leen état jàppale leen ba ñu yokk ba ñu yokk ko sax ba de indi fi benn fii trois cent ñun dañ leen jàppale aussi ñoom ci ouvrage tertiaire yi ñu def ci seen biir quartier

comme nous sommes en train de faire, ça contribuent jusqu'à 35 et 40 du volet communautaire. Il y a un volet, c'est ville et commune.